axirate ak alaxira yàllaa yeyoo cant ci addina moo yenoo cant ci alaxira bu àjjanaa jullit yi dinañu sant yàlla ñetti yoon ñetti sant ndax boo xamee ne ki ne dugg nañu bàmmeel ba gis xiiwal ya ca nekk foofa dinañ fa sant seen borom dinañu wax ne alhamdulillahi alladi saddaqna waadahu nga gërëm yàlla mi nga xam ne la munu digoon def da ko suñ demee ba jéggi siraat dinañu wax ne alhamdulillahi alladi hadana li hada ma kunna linahtadi lawla an hadana allah bu njaaxaanee àjjana nag buy yóotu ngeganaa yi fab wantaay yi ferwi bi daw foofu dinañ wax alhamdulillahi alladi asbana xasana inna rabbina xafuru sako fii ci àddina it boo xëyee xëy jàmm nga ne alhamdulilah suñ la mayee dara nga ne alhamdulilah kon lahul amdu fi dunya wa lahul amdu fi alaxira waaye nag dafa am séparation amdu fi dunya taklif la amdu fi alaxira li tëll susib la cant gi ngay sant fii ci àddina cant service la cant ga ngay sant ci alaxira cant ak bànneexu la yooyu bànneexu li mu la wóor na dee dootoo xew te fi nga ne fi nga nekk neex na kon ñu ko cant yi wute na am du taklif ya ak am du tasniir ya kii am du la li talazuzin talazulan li sawaali taklif yi li sawaali taklif yi tax nga ne alhamdulilah kii nag am du la boo xam ne dañ la ko sant pour nga sant ko yépp nag maa ko moom wala walhamdu fi dunya wala walhamdu fi l axirati ñu dem maa ngi laaj ñu may utal nawle Moustapha wala woo ñeen la ko boog yàlla alxukmu lu mu nar lu mu doon wa turjaona dinañ leen dekkal jiital leen ilayhi ba ngeen teew ci kanam laajal ma leen nii ndem am naa nawle araytum solool leen ma in jaala bu soxaloon laawu yàlla aleykum ci yéen layla guddi sarmadan sarmadan sarmadan maa ngi laaj bu boobaa man ilaahun xayrullahi yaatikum bi diyaayi yàlla nee na laajal ma leen su fekkoon na ci ne dama def guddi mu continuer mu continuer bër bañ a set ma fab jant bi jant baa ngi soxe mu ngi soyee ci suuf ma tëj ko ci biir suuf mu gën a bañ a génnaat fenk tëj ko rek tëj ko rek tëj ko ta ko tijji man ilawun ana beneen buur xayrulaay buur yàlla yaati ko moo am mën mëni tijji jant ba fu ma ko tëjoon ci suuf yi juróom-ñaar ma fenkaat ba ngeen am bëccëg kenn contrôle war côté bi su ma ko tëjoon ba ma ko tëj jëme ko ila yawm al qiyamati it du ngeen amaat leer da ngeen di continuer ci lëndëm rek ma ñëw ci safaan bi bokk araay toom solo leen ma in jaala ndéem defal na laaw yàlla aleykum ci yéen naara ba ceg sarmadan sarmadan sarmadan ila yawm al qiyamati fii jant bi toll ci digg ba ceg bu ma ko fi téyee mu téye buuse te buuse rek te buuse te buuse te topp ma ne man illaahu ana beneen buur xayrullaahi budul yàlla moo ñëw di ko puus di ko puus ba mu langaan mu xar suuf dugal ko ca tëj ko ngeen am gudd gu ngeen mën a noppaloo kan la te bëccëg li taxaruki bëccëg ko ngeen uti lu ngeen am la guddi ngeen noppalu coono bi ngeen doon def ci bëccëg kon soo ramassé leeraay jant bi yóbbu kon fàggu ji dootul am su ma ramassé lëndamaayu guddi gi yóbbu noflaayu guddi dootul am maa ngi laaj nag yooyu ñaar bu ma ko defoon ñoom ñi may utal nawle ana kan ci sama nawle yi ñoo koy indi kenn du ko indi de aa illa yawmal xiyaamati nag déedéet afalaa tubsiruuna bu ngeen seetantalu nag ne yéen ci njuumte comme ngeen di oo bu ma yóbboo jant bi duñ ko mën a indi du ngeen seetantalu ne yéen ci njuumte ñu dellu ginnaaw tuuti araytu moo solo leen ma xamal leen ma in jaala donte dogaloon na laaw yàlla aleykum ci seen kaw léegi la guddi sarmadan daiman sarmadan daiman ila yawm alqiyamati maanaam man ilahun ana beneen buur xayrulaay bu dul yàlla ci seen i wax yaatikum moo leen mën a indil bidiyaa yi ci bëccëg bu ngeen mën a uti dépense afala tasmaona du ngeen dégg nag léegi du ngeen jéem a déglu déggub dégg dégg boo xam dina ànd ak fëhmu xulaa raytum solo leen man de boobu fànn mënuñu ko in jaala doom te dogaloon na law yàlla aleykum moomu ci seen kaw ne heure bëccëg farmadan jant bi ñëw ba digg piccëg mu lànk ne du buuse stationné fa taxaw rek ila yawmil qiyaamati jëme ko bés penc ma ne man ilahun ana benn buur xayru laay bu dul yàlla yaatikum mooy ñëw puus ko ba mu dugg mu indi leen bi léegi ci guddi goo xam ne tës ku noonu da ngeen mën a noppalu fii ci guddi gi ma ne afra tubsiruun du ngeen settantalu ba yëg ne yéen a ngi ci njuum xam ngeen ne wa min rahmati ci yërmandeem ju rëy ji rek jaala la jàllaw leen làkkum ngeen leen lay la guddi ngeen noppalu wanaar ak bëccëg li tëskunoo ngir ngeen mën a noppalu ko fii ci guddi wali tëb tappoo ak ngir ngeen mën a fàggu ci bëccëg min fadali yi ci wërsëg wala àllakum taskuroon aaya bi indi na ñaari atte bayaan indi na tëyu ak nasru indi na tëyu ak nasru boo xam ne nasru tartib la indi na ihtibaq ndax jaala leela tëyu mooy nga lim yu bari ba noppi dox gannaaw di farafan ci li nga mburi lim li nga limoon la ne Ibrahima Samba daal fitam wa kanamam nga ndey jooram ba ñett yooyu nga limandoo nag fitam wa kanamam nga ndey jooram ba nga wëlbatiku nag di firil yooyu nga ne mu ngi mel ni weer ñu xam ne kanam nga nga wax nga ne mu ngi mel ni gaynde ñu xam ne fit wa nga wax nga ne mu ngi mel ni taw nga ne dafa tabe su fekkee bi ngay wax ñi nga teglee wax bi bi ngay firi noonu nga ko teglee moom la ñuy wax nasru tartiba xam nga jaala lay la wanaara kooku tëyu la maa def guddi ak bëccëg yow tur la nag di wax li guddi di jariñ ak li bëccëg di jariñ kooku moo di nasru bi su fekkee ki mu jëkkoon a tudd la jëkk firi muy tartib bu fekkee ki mu mujjee jëkk ki mu mujjee tudd la jëkk firi mooy xaqsu bu fekkee digg bi la wàcc mooy ñu bëgg waaw istibaak ngi ci itam ndax indil na jëlal jumla ju nekk am na lu mu la jëlal lu mu la jëlal feeñal ko morooma ndax jaala lakumu layla layla mooy lan al muslimu mu asaf muslimu yanaara moo indi bëccëg bëccëg mooy lan diyaa mu asaf ko mu indi li tuskunoo fihi mu dellu ci guddi wari tabtaqu min fadlihi mu dellu ci bëccëg wala allakum taskuruun ay ji góor fàttalikul amul dara lu gën a réy ci yàlla mbokkale dara dara dara moo tax ku ko bokkaale doo doo ko defal lu mu gis amul dara lu gën a réy ci yàlla liimaan moo tax ku ko def liimaan mënatoo koo defal lu bon lu mu gis dégg li ma wax de amul dara lu gën a réy ci yàlla mbokkale man naa laa aziru an shirki bi waaye après ma doon sàllik li may sax bu ko xasee bokkaale nag mën a toog koo defal lu baax lu mu gis jamais jamais amul dara lu foora ni moom lii naan gëm ko taw it soo ko xasee defal mën a toog def lu ñaaw lu mu gis waaw sa rek takkaraal na ñaari yoon ci sar bi jeexagul affaire sooka yi mu ne wa yawma yunaadihim bés bi nga xamee dañ leen rappel kenn par kenn fa yaqulu waxeef leen ayna surakaaya ana sama nawle yàlla fii na ya nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tasumuuna di wax ne ay nawle lañu ak man ya ngeen noon ñoo di ay yàlla ni man wa nafaanaa danaa génnee min kulli ummatin ci mépp mbooloo sayidan aji seede joo xam ne mooy taxaw xamal ne yàlla kenn la mooy taxaw xamal ne jotaloon nañ leen yéen a bañoon fa xul naa dinañu wax keroog ñun yàlla ñeel yéefar yi xeetu indi leen burhaanakum lay yi ngeen mën a dëgale ne am naa bokkaale fa alimoo keroog dinañu xam ne anal xaq nguur goo xam ne dañ koy wéetoo li laay ñenn yàlla rek wa dalla dana faddu an wadi seen maakaana rek nekkoon yëstaroon di dus ko duur ko benn waaye ngi buñ waxtaan woon démb ay mbiram kii mën naa jàjj képp ku daw jëm ci àddina mën naa jàjj képp kuy dajale aleen mën naa jàjj képp ku nay mën naa jàjj képp ku jox lislaam doole xaaroona xaaroona bi la ñuy bëgg a dugg mbiram mbokk Moussa la ndax Yashuwa ko jur Yashuwa Imran mi jur Moussa faa xasaalin jur kon mbokkam la woon mu ko jëlee mbokk na ci juróom-ñaar fukki yi nga xam ne ñoom la Moussa nane woon pour ñu dem ci déeyu yàlla ga ci déey googa ci la jële lu tax moo añaane Moussa li mu nekk ndax dégg ne Moussa di waxante ak yàlla yàlla di ko tontu mu añaane ko risaalati bi gis sa yëpp ne ah aaroon ni fi desoon moom la ñu def presque président mu njiiti jullit yi amul cër mu añaana leen ñaar yooyu waaye yàlla may na ko xam-xam lool xam-xam bi kimiyaawu la woon ndax kimiyaawu bi bi mu ñëwee Moussa daf ko séddale xamal lii aaroona xam lii xamal li xaaruna xamal li nu mu tuuti anaana mu fexe ba jël seen ñaari xam-xam boole bosam daana fa përëm def ko wurusu ngalam daana def daana def daana fa alminion def ko xaalis ger li mu amoon ci aleel kenn xamul na mu day alxuraan dina la ko wax léegi mu dal di bew ngir aleel ju bari joojale encore aleel ji xiir ko ci kañaan ak riñ ndax boo réyee dootoo bëgg ku la féete kaw da ngay bëgg ñëpp nekk ci sa suuf xabaaram nag la leen alquran bëgg a nettali xaaruna wax nañu ne am na sax ñu waxoon ne ci coppafor yusufa yi nga xam ne daf fi desoon ci la juux benn ba jële ci aleel joojule waaye daal ak lu ma am ak aleelem jooju mujj na dem jahannama ina xaaruuna waa ji ñoo xaaruuna kaana nekkoon na min qawmi Muusa ci jege ñaali Muusa fa baqaa mu bew ngir rëy ak ngir bari aleel wa ataynaahu mayoon nañu ko minal kunuusi ci coffre-fort maa inna mafaatihahu coffre-fort yoo xam ne caabi yi koy ubbi rek le tënna uw dina diis gan bil usbati ci mbooloo moo xam ne mbooloo bax la lay doon te bax la bu nekk uuli quwati waromi doole la ñuy doon caabi yoo xam ne juróom-ñaar fukki bax laa koy sëf caabi yi premièrement reñ la woon waaye ñu dem ba antanuñ ko ñu fexe di liggéey di liggéey ba soppi ko bant ñu dem ba amatuñu bax la yu ko antan ñu soppi ko deru giléem deru giléem yi toll ni baaraami sànq lañ moo doon caabi yi dajale na ci ci coffre-fort ba am ci loo xam ne lii juróom-ñaar fukki bax laa koy sëf te du doon bax la yu ndaw te du ñuy diis yàlla wax na ko nee na bax la yu uulu quwa la ñuy doon i qaala lahu fàttaliku loon ko la ba nga xamee ne wax na ko xaw ma bokkam ya nga xam ne jullit lañu ne ko ay waajile laa tafrax bul rëy bul bew ina laa yàlla laa yuy bu du fekk fekk bi kontaan loo afariina way bu way way way beew ña beew maa kuntum tam taru tam tatiruuna ak maa kuntum tam tam tam tarihuuna cuut la ko ñu wax olof yi dañ ko wax loolu maanaam ma lekk ba tëdd ba dentu wattaqi sàkku léegi fi ma ataaka ci wërsëg bi nga xam ne may na la ko laaw yàlla sàkku ci ab daara teyu kër ga al axirata gëdi aji mujj waaw waay góorgóorlu waay jëfal yàlla ci sa xaalis bi ay waa ji wala tan sa nag waxuñu it nag nga bàyyi nasibika mina dunya ci am na ñaari prix bu mu tax nag nga bàyyi sa àddina ba doo lekk doo naan am na ñu fule noonu am nañu ne déedéet wala tansa nasibaka mooy loo defal defal yàlla bul fàttee denc na càngaay ak wuttin waxtin na nga rafetal ci nit ñi di leen sarax kama ahsana ni ko rafetalaaw yàlla ilayka jëm ci yow wala tabxi bul sàkku fasaada yàq fi ardi ci suuf si réew mi te mooy mooy yàlla ina laa borom bi la yuhibbu du fay fay buy kontaan loo al mufsidina way yàqe tega li mu tontu alal ji inama uutiituhu njoxef na ma lii ma yor ba ngeen di ko naw ala ilmin ci sa bas xam-xam boo xam ne indiya mu ngi fi man du kat yàlla ma baaxe jox ma ko du sens doon ma ko xam-xam ñu ko may yàlla daal di def nag jumlatul ixtiraab bi ne awalam yaxlam bi muy wax loolu dafa fàtte ni wala dafa xamul ne ana laa naka yàlla xat alaka rey na min qablihi bi mu la tudd min al xuruni ci maas yoo xam ne man maas yooyu huwa kenn ku ne ci ñoom ëzzadu moo ëppoon ñu ni ci moom xuwatoon mboole mu doole wa ak suru moo gënoon a bari jam an dajale la akal aleel xanaa xamul ne rey naa ñu ko ëpp aleel rey naa ñu ko ëppoon mbooloo mu ko fopp des nag daana def bu amee ñetti weer génn doxantu bu masaa di génn di doxantu ba si samedi la koy def daana ànd ak ñeenti junne am na ñu ne juróom-ñeent fukki junne la daan àndal ci couleur yoo xam ne couleur yu ruus lay doon ci moom la ñu jëkk gisee couleur yu ruus yooyu nee naa bu génnaan ma waaw côté ndeyjooram ci escorte bi ñetti téeméeri jeune ma ciy nekk côté càmmoñ bi ñetti téeméeri jànq ciy nekk jànq jaa ngi weex tàll takk wurus takk sabar jadd war ay naaru góor ñi war baax la yoo xam ne dañ leen di tarka wurus laa ba leen sabar jadd mu war nag benn bax la boo xam ne day am weex-weex ak ñuul ñuul tarka ja wurus la laab ja wurus la nuxura ja wurus la mbàjje yeñ ca lal day nekk xatifatul amrax mbàjji tatt yu nooy népp yoo xam ne ndëndal lay doon mu war benn takk sànni gin romb nag waa kër mu faay am na ci ñoo xam ne seen limaan du mat buñ gisee alal rek fàtte li ñu nekk defe ne alal la gën la ñu nekk fa xaraja mu génn bés ngir porome na na mu ko baaxoo def ala xawmihi fi siinatihi ànd ak gaaram ga ànd ak mbooloo ma ànd ak taar bu mu yor xaala daal di gaaw wax le Sénégal yi nga xam ne yurit doona seen bëgg-bëgg yëpp mooy aayata dund bi ak durée bu gaaw a jeex bi ñu naan yaa layta lana aka neexoon nu am misla ma uutiya lu mel ni li nga xam ne mel nañ ko xaruna xaruna innahu naka xaruna la fa azim borom cër la azimin bu màgg màgg ñu ngi bëgg a salit di xaala wax wa xaala wax la si na ña nga xam ne auto joxat na leen elma xam-xamu digëb yàlla elma xam-xamu tabik ajana ñoo wax gaay na la waylakum attention baat la boo xam ne day jàjj hey moytu leen moytu leen bi wax bu leen ko waxati musibaa ngi leen di dalkat sawabullahi xamu leen ne ajana xayrul moo gën fuuf lii waa ji war ak ñi ko topp waaye ajana bi ma amana ñel na këddum na wa amila ta mu def saalihan lu baax wala yulaqihu du tabbi ajana ila sabiruna ndaree gor ya nga xam ne ant na nu muñ topp ant na muñ mooy yàlla nu mu mujje fa xasaf naa ma won na loo bi ci xayruna ci boppam wa bi daarihi ak ca këram kër ya bari ak këram gëdd la arda suuf fa maa kaana nekkul loo ñeel ko këram bu ma ko songee min fii ëttin ci mbooloo yan suróona hoo yu ko mën a xattale min dooni lay ci duma yàlla wa maa kaana nekkul moom ci mi ne mun tadrina bokk ci ñu mën a xattali boppam bis rek mu oote oole la daan def nag invitation kay yi ñëw muy rey di leen jox sàngara ñuy naan di xàq tay di waxtaan ba am benn bés mu ooleen ci këram waxtaan ak ñoom te dajante Moussa yàlla sant ko asaka Moussa ne ko nag suñu borom sax wàcce na asaka waaye yow dinaa la defal nu ngeen ko wax follower waaw kay moo di junney xar yu nekk benn laa ciy jël junney giléem yu ne benn laa ciy jël junney fas yu ne benn soxla junne yi nag yu ne benn laa ciy jël parce que fas ak mbaam du leen gën a saka junne xar junne nag yu nekk benn nag laa ciy jël junne xar yu nekk benn xar junne béy yu nekk benn ji béy junne giléem yu nekk benn giléem junne dërëm yu nekk benn dërëm mais dama ko calculer xool ko dafa bari ci moom mu ñëw mais c'est trop mais c'est trop mais c'est trop yow yaa ngi defee neuf cent lan loo defee waaw neuf cent quatre-vingt-dix-neuf benn bi ñu naan c'est trop te lu ne bàyyi nañ ci neuf cent quatre-vingt-dix-neuf daal di autoriser ñoo rek ne leen xam ngeen lu xew waa ji fi mu jëmoon ñun duñu xamu leen ko lu ne dugal nañu ci lu ne dugal nañu ci ñu nangu léegi nag fexe jël sunu alal jël ci des ñu naan day génne asaka ak yi kenn xamul waaw lu ngeen xam ñu ne ko yaay suñu kilifa loolu def rek ñu ànd nañ ci mooy leen da ngeen di seet ndaw si gën a ndaw si gën a ndaw si gën a bon ci dëkk bi xam ne ñépp xame nañ ko caaxaan ngeen ool ma ko ma ger ko mu diiñ Moussa Touma am na ñu ne daf ko jox libido daf ko jox daf ko jox daf ko jox àndaari libido ba mu fees am ñu ne junney libidoor la ko jox dik ko ne ko dinaa la jël dugal li suñu biir njaboot ndaw si d'accord ñu dem autre réunion ba ñëpp daje moo demal boppam ci Moussa ne ko yow la ñuy xaar ñu naan laa dégloo ci kaay tere ñu bàyyi nga santaane ñu def nga moytandiku loolu nu moytandiku Moussa ñëw keroog la ko yàlla xiir mu jëkk a wax daf ne ku sàcc te la ñu sàcc ñu gis ko nañ dog sa loxo ku xas asgor ñu caw la ku njaaloo te amula jabar nañ la caw boo amee jabar nañ la jëm ba nga dee xaaru na dal di yëkkati loxoom ñaan taral Moussa ne tekk mu ne ko loolu nga wax bu doon yow nag walaw anta mu ne ko walaw ana mu ko am na lu fa xew am na ndaw su wax lépp am na ndaw su ne seeti nga ko biig di ànd ak ngeen ñu ci mbooloo mi moom affaire la boo xam ne c'est de la race mu ngi nii ndaw saa ngi Moussa daal di Moussa daal di jooy ngir gàcce waaye yàlla xiir ko mu teg loxo ndaw si ndaw si wax na ne jamono bi mu ma Moussa dëkk ma lee dina laaj si maa ngi fàttaliku li médik ak ni mu amee mais it ma fàttaliku ne rusloo suma bopp ci kanami mbooloo mi ne waxuma ko woon moo gën a tuuti ñu dumuma ci yàlla Moussa ñëw rek ma dal di yàlla génn ma ci nafiq ma ne ko musuma laa xam sax dama daan dégg rek xaaru naa ma noonu na ma neexal ma wax la nangam ak nangam ah Moussa dellu ca place ba ne bani israil laqad alimtu bi anni marsulun ila firawna kama arsalani rabbi ila qaruna yéeg ngeen ne yàlla mu yónoon ci firawna fa nu jaar uñku leen mu yón yoon ma ci xaaroonu nii bés xew na nag ku farak moom nang fi des ku faral ak moom jógal dégat fekk ba mu jooy yàlla wóoyu ko ne ko jox naa suuf mu ngi si ndigal loo ko sant tey mu def wax nañu ne ñaara fa des rek ak moom mu dal ne suuf won na leen Moussa daal xaaroon na tiiruwaan na ko juróom-ñaar fukki yoon biir réer Ibnu Abbas ne na waxuñu yete jël jëlu fi baatinil arab wala yeliqu wala yabluqu muntaha qayril ardi ila yawmil xiyaamati suuf won na ko suuf daal di ko ni dëriix ngi dégg ni lu koy defe taj taj taj taj mu tëj ñu ko tiim ma ñu lunte la ñu suuf won na ko suuf won na leen won na won na won na won na won na juróom-ñaar fukki yoon yàlla nee na ko foofa da nga wow xool dafay juum daf ma waroon la o tiinuwaan bu ma woo woon tiinuwaan ma baal ko tiinuwaan na la juróom-ñaar fukki yoon nga bañ tey laa gëj a may nit lu ko neex ca moroom ak li ñu koy toog yëpp yàlla bëgg na ko baalaat mais Moussa day dafa xam ne moo fi fës war a doon na xaaru na ndax Yasxur moo jur Xaaruna Imran moo jur Moussa ñoom ñaar ñoo bokk benn baay bu ñu wax Fahasha Moussa nag Xaaruna nag ne Moussa nag ne yàlla kër gi na ko suuf wan na ni mu wan ne borom ba ñu xam ne bëgguma ko ah bâtiment bi commencé rek di réunir maj maj maj maj maj maj maj maj maj maj vingt essence beneen meññ réer ak la ca nekkoon ci ñëbal yàlla dafa xasaf naa maa wan na loo bii jiwaa jooju laar ba suuf ubi daarihi keroog ba ma ko songe sama kaane nekkul loo ñëw ko min fii ëttin ci mbooloo wala soldaar yéen suruuna yoo xam ne mën nañ ko wol mbaa ñu atte ko mbaa ñu dox min dooni lay diggante ñu dumuy yàlla wa maa kaane moom ci boppam it nekkul ñu ne mun toppi dina waa subaha dal di mujj la siina ña nga xam ne tama naw ñu nga doon xemem ñu mujjee luñ doon xamee makkaat bi yàlla ne na bi tilka lii ab daaru mooy kër gal axiratu ajjana jooju mooy kër gu mujj gi waaye daal najaluha dañ ko dencal di la si ne ñeen ña nga xam ne laa yuriduuna namuñu xuy woon kowe te àdd ci suuf mooy rëy wala fasaadan du caageen may laa yuridoona jubluwuñu ci seen aleel ulwan bew wala fasaadan du caageen mooy yàlla mu de xaaroona wal aqibatu mujj gu rafet lil muttaqiina ñen na ñaragal mbugalam yàlla ba topp yàlla man jaa ku indi waale naa laa wax waxuma man faala de waxuñu ku def yiw de moo defee yiw te bàyyi ko ba deeale yoo kii déedéet waxuñu ko de man jaa ku indi waale na fii bil asanati ci jëf ji yiw falahoo ñeel na ko xayrun yool min aay ci jëfam ji yu fukkeelam man jaa bil asanati nag asanati am na fu ñu koy firee laa ilaha illa allahu waaye bu fépp fu ñu ko firee laa ilaha illa allahu xayrun jooju te mun a nekk afala tafdil déedéet dootu ko mën a nekk ndax laa ilaha illa dara mënu koo gën kon da nga naan man jaa ko indi na bil asanati ci laa ilaha illa allahu fii ci alaxira faloo ñal na ko xayrun tey bu yëy bu baree bari min angir baat boobule wala nga man jaa ko indi na man jaa ko indi na bil asanati ci julli wala bil asanati ci saraxa dërëm wala téeméer faloo ñal na ko xayrun lu gën min aaca loola mu joxe lépp loo firee asana lu laa ilaha illa allah mën ngaa firee xayrun ja afala tafdil mu gën loola ginnaaw laa gën a am solo na ci lépp lu jaam di yëngu moo di yàlla tax sunu borom tabaraka wa taala dafa di mu nit nit ak nu mu liggéeyee boppam dafa am différence bi yaa ngir bañ pësaloo koy defar nar koo moom di defar sa bopp nara moomaate diggante ki nara moom ak ki ñu nara moom daa mul différence lool mën naa jur ëllëg pësaloo mu bañ loolu nag dinde nit cib mànk di woole dinde boppam cib mat di xoot da lépp nit ki fokk day tut lii li nit ki tudde ku mat muy yàlla doomu aadama lu ñu am lu lu ñu da ko tudde yàlla waaye bu ko ca roccee rek mu tuuti ni borom waaye bu ko tuddee ku mag ki nag ma mag ni kañu ko tudd moo yooyu nag ndax ñu doomu aadama baree man-man ak ñu ñu bañ a kump ak ñu ñu bañ a ko ko nopp ku ko nar a nopp soo deful woon ni mu def ngaas dina am mbaa mbaa mbaa téye waaye nag dafa dafa bañ a defar kenn di defar boppam rek bañ a defar kenn di defaru rek di defaru bañ a defar kenn di defaru di defaru bañ a defar kenn di defaru rek di defaru ba defaru door a defar ak ndefar ginnaaw bi mu defaroo waaw mu defaroo defaroo defaru ba du dee def ak ndefar ak ak ndefar su ma def nag borom di dee mu fexe moom ba du dee bu fekkee nag dafa nit ñi ñëw gis la te kenn du ko gis ci defaram waxoon bu gudd bi kuñ ko ñëw ko jot la te kenn mën a koo jot kenn du sottal la ko soobul luñ soobal boppam du sottal waaw bu mag ñi ay nelaw nga jàcc di nelaw di gëmmantu ñu di naax di tële du fàtte di naax di juuri roof ñu leen roof xamadi roof mënadi ba roofaale sukuraat ak ndee mu dàqal boppam yooyu jekkoo leen nag li huwa qaahiru fawqa l-ibaad kooku lu jaam ngeen bu jëkk tudde ko ko dina fi sàbbi na waaye boo xam ne rocc nga ko rek perte dikk na kon nag ñu sellal yéene bu baax a baax a baax a baax dem ci jëf yi di ko mën a dalit naqar yi la jëfanteel moom yàlla tabaraka wa taala ndax moom boo teewee dina xam boo teewul it dina xam kon ragatal yéene yi jébbal ko ko ci barket ci ormay sii di lu suudi ak barket sunu sëriñ xaaj Malik radiallahu taala anhu ak doomam yu baax yi nu mu bàyyil ak sunu xalifa bi tey xalifaam ak barkey sëriñ sëpp yi di kiitasey islam yàlla nangul ñu suñu jëf ji sunu tuut ji di coppati ca matan nga ku ñuure ko ko ba mu di mat di jaay rasulillah wa ma salika ala llahi bi alayhi yàlla nag mën na ko ndax mbooloo mi kaar am na fa am na lim bu ne di tudd di mu dugal ci biir lim ba ñàkk ak dàntuk yàlla lim boobu ñu fi teew ëpp na ko am na ñenn nag ñu ma tudd ñu mu dee gàntul yàlla ñenn nag ñooñu ay joppal ci ma ne am na lim bu yàlla na di tudd ne lim boobu di ñu ànd dagaan ka dara mu delloo leen ko lim boobu ñu ko ëppal ci waaw am na ñenn nag ñu mu tudd it ni ci couleur mën na mbooloo mu gàntul leen ñenn nag ñooñu ay joppal ci kon jottut ne nag ñooñu ak jiitu ci ñun boobu la di niroon mën naa dalal xelam ak yaakaar